bismillahi rahmaani rahiim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa bokki jullit yi bokki taalibe yi bokki senegal yëpp noo ngi ñépp ñëpp ci turu Cheikh Mamadou Mountakha di sant ñépp di jaajëfal ñépp jataay bi itam li ko waral mooy na mu daan demee rek sëriñ bi bokk mi yi mu àndal liggéey bi waxtu wu amee lu leen war a defloo ci liggéey bi da leen koy defloo ñoom it dañ koy def defeen rafet ngir sawar ca ak bëgg ànd ak moom liggéey bi ak yéene ko ndam loolu moo tax ñu toogaat nii ci sëriñ Maam moom sëriñ Fàddilu sëriñ bi yónni ko ay kàddu yoo xam dafa jëm ci bokki rek jullit yi rawaate na bokki Sénégalais yi nga xam ne liggéey ci tool yi day seen wàll mu bëgg leen a jox ndigalu tàmbali tool yi sëñ Maam Moor nag bokk na jëwriñ yi nga xam ne sëñ bi da koy liggéeyloo ci liggéey bi te lu mu ko ci def loo da koy def ak yéene ak pasteef rafetal ko matal ko sëkk loolu moo tax sëñ bi yónni ko ngeen mu jotliwaat ay kàddoom jotliwaat ndigalam kon ñëpp bokk ko déglu parce que yéen jafe incha allah. bokki jullit yi ñuy jàkkaar lool bokki taalibe yëpp noo ngi jéggulu di jotale ay kàddu yu bàyyi ko ci ku tedd ki Cheikh Mouhamadou Mountakha al xalifatul am li tariqatil muridiyya moo fi moo boole ak sëriñ Cheikh moom sëriñ Abdou ak mun Muntaxa Mbakke moom sëriñ Maam Mor Pakala ngir niñ ko defe woon daaw ci waxtu wii ñu doxewaat ko nañ ko doxe woon te moo di daaw waxtu wii daa tombe woon nag ñu war a doon joxe njàngum alxuraan mi ci weeru rajab ba mu tombe woon nag waxtu wi mu waroon a soññee liggéeyub tool yi mu ni woon kon ginnaaw daf may wooteloo njàngum alxuraan mi na ca boole nañ ca boolewaale woote waale ñu tàmbali liggéeyub tool yi moo waral ren jii bi nga xam ne xaw nañu am ab sore tuuti mu wax ne dafa bëgg ñu wax ko nañ ko waxee woon daaw mu xam le ni ginnaaw bu mu nuyoo bokki jullit yi nuyu bokki taalibe yi sant leen gërëm leen ci ci ndigal yi nga xam ne mi weesu na te yépp ñu jëfe ko nam ko nam ko bëggee mu ngi leen di ñaanal di ñaanal taalibe yi tawféex ak taysiir di sant bokki jullitam yépp ci nangu bi nga xam ni lépp lu mu woote ci lislaam ñu fekk ko ca di sant bokki taalibe yépp nga xam ne lépp lu mu woote nga jëmmi Sëriñ Tuubaa ñu fekk ko ca loolu ma waral mu ni nañ jot jot la ay kàddoom wax ni dafa bëgg altine ji jëm di fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru Sha'baan ñëpp ñu ànd dellu ci yàlla wakkirluwaat ci moom euh, joxaat suñu bopp Serigne Touba gën ko koo jébbal gën a am dolli sunu yaakaar ci moom gën a rafet njort ci lim nu dig lépp nu tekki suñu bët te lay ñëwit noonu lay mel wala nu ko raw nu àndaat kon yeesalaat sunu taalibe ci moom fetluwaat sunu sunu laxasaay ci moom wëlbatiku nag li nga xam ni mooy mooy yor réew mi moo nu tax nu mën a jàmm yàlla mën a tax nu def suñu liggéey nañ ko bëgge muy dellu ci tool yi liggéey ñu tàmbali ko mun nag dafa bëgg bu altine bu ku xëy nañ ko daan defee rek nga xëy ci tawasul bi nga xam ne ci la si moom mooy moom mooy lépp sëriñ muy alxuraan ak xasaayit ñu tàmbalee ko lu waay man mu jàng ko bu xëyee dem ca tool ya def ko tàmbali muy loo xam ni Euh, lam ci jublu mooy waxtu wii lañ ko daan lañ ko daan def mu bañ mu mu mu romb te te defuñu ko kenn ku nekk nga am euh, pësteefub altine ji mooy sa tàmbalib liggéeyub tool noo ko tàmbalee nag baax na noo ko tàmbalee ci bis boobu rek baax na boo ci amee yéene mu wax ni kon ñiy bay ñëpp ñi tem ci nañ daal dellu ci tool yi tàmbali ko noo ko tàmbalee baax na ba saa yoo ko mën a àggale waaw noonu noonu noonu la ko waxee alxuraan ji itam li tax mu boole ko ci moo di la mu waxoon ca wooteeb alxuraan bii weesu bayit yi mu joxoon ñu jàng ko muy barakatul quraani taxmil qaari'a mimma minal balaa takunu taari'a loola lam lam nu ci diggoon noo ngi koy gis yàlla na gis gi yokk ndax dafa joxoon ne barkeb alxuraan li muy indi ci doomu aadama bi moo di lépp loo xam ne balaa la buy ñëw njàng kiy jàng alxuraan suñu borom dana ko ca aar lépp loo xam ne lii itam kenn xamul fu mu jugee te xamul kenn xamul mu yem bu dee boo dee jàngal xan te sax ci suñu borom dana la ci aar loolu moo tax mu doon ci soññi kon nag ñu dégg ko noonu loolu rek moo doon moo doon waxtaan wi mu ne na ko ñëpp jàpp yëmaliwu koy nag ci ñi dem ci tool yi rek di ruuji waaye mboolem fu waay nekk di liggéey te la ngay liggéeyee la nga ci jublu mooy loo jaamoo yàlla ak loo joxe loo jox addiyee sëriñ bi foo foo mën a nekk bu dee kuy jaay la bu dee kuy Euh, sàmm la bu dee kuy yeexantu la moo xam ku mu doon na xam ne bis boobu na nga ko defaat muy sa bisu tàmbali liggéey euh, def ko ci ndigalu sëriñ bi te xam ne sëriñ bi képp ku jaar ci ndigalam lim la lim la defloo nga def ko la nga bëgg lépp danga ko ci jëlee. kàddu yooyu na sëñ bi ne woon nañ ko jottali bu noppee jox sëñ Cheikh Abdou Latif ndax euh, suñ kàddu dafa xaw a demee noona mu leeraat leeraat ni li li ci li ci xaw a lépp. ñoo ngi sant ñëpp di ñëpp di sàkku nag ci mboolem taalibe Serigne Touba yi mboolem bokk Serigne Touba ñu dimbali ñu jàpp jàpp ñaanal Cheikh Modou Mountakha mu yàgg fi te wér liggéey bi mu sembal Serigne Touba te ñëpp gis njariñ li tàmbali koo gis suñu borom dimbali ko ba mu àggale ko na mu ko bëgg te ba ñu am benn gàllankoor waaye moom itam lool loo loolu nun taalibe yi noo koy ñaanal ñaanalale ko bokk Serigne Touba yi njabootu Serigne Touba gépp góor ak jigéen waaye ñaanal kilifa yi diin yëpp sëñ Mountakha mi ngi leen di sant kilifa yi diine yëpp di leen gërëm di leen ñaanal yan bi nga xam ne suñu borom yan na leen ko muy mbooloo mi leen yàlla boole te ñu war leen yóbbu ci yàlla war leen a teete leen ci lépp lu baax suñu borom dëgëral leen may leen kàttan ba lépp lu luñ ci bëgg suñu borom defal leen ko nañ ko bëgg ñaanal réew mi ñaanal waa réew mi ñaanal jullit yi ñaanal réew mépp ñaanal àdduna si suñu borom def fi jàmm loolu kàddu yi la suñ bi ne woon nañ ko ngeen ko jottali ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu yàlla nañ ko teewee na gën a déwén te kenn bañ a manqué ci suñu borom saafara lépp ci barke borom Touba jërëjëf kon nag bi sëriñ Maamoor yëkkate kàddu yu mat li yii kàddu yu rafet yii te nii rek la ko sëriñ bëggee woon kon nag ñëpp nañ ko déggee noonu fas ko yéenee toppee noonu te nii mu ko waxee rek ñu fas ko yéene def ko ci ndigalul sëriñ bi te rafet ci njort te yaakaar ci barke xam ne bu ñu ko defee ni ko sëriñ bi diglee barke rek da ci wàcc sëñ Maamoor leeral na ko lu waaye def da nga yeesalaat pas-pas bu yees ci jublu ci liggéey bi fas kenn ku nekk fas yéen loo ci jëlee nga liggéeyal ci yàlla liggéeyal ci sëriñ Touba la ci des nga jëriñoo ko boobaa yàlla na ci gàttandoo ak barkeem sëriñ bi kàddu yi nga xam ne nag bëgg naa ko ci dolli mooy nii mu demee gis ngeen ko mu Mountakha loo ko ñor am na ñu ngi koy wax loo bokk na ci lu waat ne am njàng sëñ Mamoor mii la koy wax loo muy alxuraan muy xasida muy lu mu doon saa suy santaane am jàng sëñ Mamoor la koy santaane loo moo tax nag wax kàddu yi jóg ci réseaux sociaux yi ñëpp di wax ne sëñ Muntaxa daa santaane am jàng alxemes ci six heures demi ak ab lim jàng baax na lool lim ba it fu ko waaye mën defee baax na waaye nag luy niru ay dajaloo wala luy niru coow wala itam nag waxal sëñ bi lu mu waxut itam da jar ku am sa yéene baax yow ban nga ko wax rek ku ko dégg xam ne lii lu baax la loo ko ko man def ko waaye nag nañ di waxal sëriñ bi lu mu waxut daal waxtu ne yàgg na ma sàkku ci ñu di ko wattandiku ndax daa man dem ba mën a jur la neen képp kuy waxal sëriñ bi lu mu waxut mën dem ba jural la yow mi ko wax loo xam ne fitna lay doon te la ma daan wax mooy boobaa da nga mere ku la deful dara ndax lu la ca dal yaa ko teg sa bopp kon nañ bàyyi xel ci loolu nañuy waxal sëñ bi li muy wax di yem fi muy yem te bu waxee nu fas ko yéene jëfe waaye njàngum alxames mii ci tàkkusaan nag moom génnewut ci làmmiñu sëriñ bi kon nag nañuy wattandiko waxal sëñ bi lu waxut ku ko man nag lu baax moom fu ko waaye mane na ko def ndax ku ko manoon bis bu set da nga jàng alxuraan da nga jàng xasida da nga jàng ak ñaan sëñ bi it am na xasida yu mu génneeloon boppam yoo xam ne wane woon nañ ko ba mool ko di ko joxe yooyu itam sëñ bee ko waxoon ngir xew bii ñaa ñaan yi bari na fi ñaan ko waaye mën a ñaan mu dellu ci alxuraan wala mu dellu ci mbirum sëriñ bi am na njariñ ak foo ko ñaanee waaye nag waxal ci sëñ bi lu waxut itam mën nañ ko watandiku ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp jërëjëf bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi